kon nu tënkal leen li nga xam ne mooy déclaration bi nga xam ne tukkee na ci collectifu société civile muy kuréel bi nga xam ni moo ŋànk société civile ci wàllu élection yi pour tàmbali kuréel gi nga xam ne moo ŋànk société civile bi ci wàllu élection yi di COSC mi ngi namm joxe xibaar ci citoyen sénégalais yépp ci nii li nga xam ne tey mooy campagne de sensibilisation bi ak supervision bi nga xam ne muy saytu gi nga xam ne tey jii noo ko tàmbali ci wàllu révision muy yeesalu mbindug woy wote yépp ci liste électorale yi ñi loolu tàmbali na comme ni ngeen ko gisee juróom-benn fan ci weeru avril bi wees ba juróom-benn fan ci weeru mais benn jëm mbind moomu tàmbali na ci réew mi wërngal képp te gis ngeen sax mbind moomu tamit ñoo ngi ciy def ay campagne de sensibilisation di koy di ci yee askan wi jaarale ko surtout ci média yi nga xam ne noo ngi ci biir réew mi ak média yi nga xam ne sax ay média communautaire la loolu yëpp nag COSC mi ngi koy def pour mën a fexe jox xibaar gu wér gu leer citoyen yi ci nan la élection yi wala nan la jéego yi nga xam ne moom la ñuy teg muy étape yi nga xam ne processus électoral noonu lay doxee ci loolu nag ci nga xam ni li nga xam ne nag mooy mission wam nga xam ni moom loolu moom mooy mooy liñ ko sas moom COSC déployé na li nga xam ne mat na ci ñeen fukk ak juróom-benn superviseur ñoo xam ñooy ay way saytu ak ñaari téeméer ak fanweer ci li ñuy wax ay relais communautaire ñoo xam ne ñooy jokkalante ci wàllu euh, wàllu communes yi yooyu itam déployé na leen tas na leen ci li nga xam ne mooy 46 département muy ñeen fukki département ak juróom-benn yi nga xam ne mu ngi ci réew mi yëpp loolu yëpp nag mi ngi ko def pour fexe élection yi nu jëm nekk élection yoo xam ne yu mujj ay yu mucc ayib la ci wàllu participation waaye itam ci wàllu tamit qualité bi nga xam ne daan ko am ci scrutin boo nga xam ne mooy jongante février 2024 ci loolu tamit kuréel googu mi ngi njëkk rafetlu discours bi nga xam ni njiitu réew mi def na ko ci 3 avril bi wees ngeen ñëpp ngeen déglu ko ci tomb yi nga xam ni rawat na dafa jëm ci wàllu dialogue wàllu concertation muy fexe lal waxtaan woo xam ne wu yaatu lay doon ci diggante nguur gi ak diggante yi nga xam ne mooy kujje gi ak ñëpp ñoo xam ne tey ay forces vives lañu de la nation moo xam société civile la moo xam foo mën a bokk waxtaan woowu nga xam ni fésal na ko ci discours boobu bokk na ci lu rafet rafetlu lool. waaye mbokk kuréel gii di que tamit mu ngi fàttali acteurs politiques yëpp wax leen ni. ñoŋ li nga xam ne mooy ñoŋeel processus électoral dafa am ay charte yoo xam ni mooy tax mu mën a euh, am te bokk na ci mooy yamale goo xam ne daan ko yamale ci lépp loo xam ni li ñuy wax règle de jeu la mooy règle li nga xam ne dañuy samp pour ñu mën ko doxal ñëpp ànd ci loolu bokk na ci liy ñoŋal euh, processus électoral bokk na ci tamit dialogue politique bi nga xam ne dialogue bi dañ ko def ci suñu biir waxtaan woo xam ne dañ koy lal ci suñu biir ci fan na yëpp nag te waxtaan woowu yëpp lañ ca jublu muy mujj ga mooy fexe ba am dal ci wàllu processus électoral bi yëpp loolu lu am solo la tamit ci titre boobu sax ci la kuréel gi nga xam ne mooy kuréel société civile nga xam ni moom liñ ko sas wàllu régulateur la du politique mooy fexe ba politique bi langue politique bi moo xam opposition bi la moo xam euh, majorité bi la bu nu amee ay jafe-jafe moom mu positionné wu taxaw comme arbitre comme régulateur nga xam ne loolu mooy mission bi nu ko sas mission boobu nag mi ngi koy taxawee ci fexe ba présenté acteur politique yëpp recommandation yi nga xam ni recommandation la yu am solo muy ay charte yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel ci élection yi nga xam ne war nañ ko jëm euh, février 2024 muy recommandation yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax daf ñuy de base pour nu mën a am dal mën a am concertation boo xam ne waxtaan woo xam ne mucc ayib la du am benn contestation bokk na ci recommandation yooyu nag santaane yooyu ba ci njëkk mooy fexe jël initiative jël ab dogal mooy jëlu dogal bi nga xam ni président de la république jël na ko fan yi ngeen gis ko ci fexe langue politique bi am dal am benn climat boo xam ne bu apaisé lay doon ñaareel bi coppite gi nga xam ni tamit daan ko amal ci article L 29 ak article L ci code électoral bi ba nga xam ni daanu fexe mën a abroger mën a daaneel nërmeel li nga xam ni mooy euh, li nga xam ne amoon na fi muy jëm ci wàllu déchéance électorale automatique ñetteel bi fexe ba am traçabilité mooy leeraay goo xam ne dafay leer naññ traçage bu leer ci wàllu carte électeur yi ba nga xam ni buñ ko distribuer daanu mën a xam euh, lim bi nga xam ni tasaare nañ ko ci réew mi yëpp daan ko mën a xam ci takk boo xam ni bu leer lay doon. ñeenteel bi fexe tamit euh, découplage euh, séparé li nga xam ne mooy carte d'identité bi ak li nga xam ne mooy carte d'électeur bi ndax loolu bokk na ci ba fexe kiy wote bu ñëwee tey indi. carte d'identité rek daana ko mën na woote facilement daal di dem ñibbi bokk na ci ba tey ci wàllu parrainage bi tamit ci recommandation yi parrainage bi rawatina nag ay mesures yoo xam ne jël nañ ko ci ndax bare woon na coow trop bokk na ci ba tey mesures yooyu bu ci njëkk nag mooy fexe nu def parrainage boo xam ni moo la wax parrainage optionnel wala bu alternatif boo xam ni benn bi nit kee koy jëlal boppam wala benn bi tam nu mën ko moo xam ne moom am na ci euh, tànn te loolu nag ñi koy def nag mooy ñi nga xam ni ay way élu lañu dañ leen fal ak ñi nga xam ne tamit nekk nañu ay woy wote yoo xam ni nekk nañu ci list bi ñoon mën nañu ko def ñaareel bi tam fexe tamit ba am benn pourcentage ci parrainage bi nu mën déterminer benn pourcentage bu leer benn lim boo xam ni daan ko am ci base lan base boo xam ne lu ñu koy jox mooy nu xam li mu way wote yi ñaata lanu ci élection bi nga xam ni moom la mujj wees muy 2019 ñetteel bi mooy fexe am lu ñuy wax système d'enregistrement ak benn système boo xam ne système mu woy saytu la système mu contrôle boo xam ne ñoom ñaar ñooy ànd tamit ci wàllu parrainage bi pour lépp parrainage bi mën a nekk loo xam ne lu mucc ayib la ñeenteel bi mettre sur pied mooy teg benn commission boo xam ni moom daanaka mooy commission de réception lay doon mooy day day recevoir yi nga xam ne mooy candidat yi di enregistrer waaye itam di contrôler li nga xam ne mooy parrainage bi yëpp ba ci contrôle boo xam ne sax dina mën a joxe ki nga xam ne def na parrainage am ba noppi benn këyit goo xam ne mooy benn cutis goo xam ne dina mën a ëllëg lu ci am ci wàllu contentieux mu mën koo taxawee ca fale yi nga xam ne mooy conseil constitutionnel waaye tamit bokk na ci ba tey garantir li nga xam ne mooy accès parti politique yëpp ku ci nekk mën a am accès mën a am euh, benn liberté wu mën a saytu fichier électoral bi ndax loolu tamit bokk na ci décret boo xam ni moo ko lal te mooy décret L 49 ci code électoral fexe ba parti politique yëpp ku ci nekk mën a am accès facile ci li nga xam ne mooy fichier bi juróom-ñaareel bi fexe tamit ba mettre sur pied tam ay points de consensus yoo xam ni mën nañ ci juboo te loolu dafa dugg ci li ko gën a mën a jëmmal sax mooy commission bi nga xam ne samp nañ ko ci commission dialogue national bi ak recommandation yi nga xam ne tamit experts yi nga xam ni ay way xereñ lanu ci wàllu Sénat ak yi nga xam ne tamit mission d'observation des élections tamit samp na ko loolu dina fexe ba nga xam ne nu mën am ay tomb yoo xam ne dañ ciy déggoo pour mën a fexe euh, parenage bi jaar yoon ba ca mujj mooy fexe tamit kuréel gii di Sénat fexe tam nu renouveler ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñi nga xam ne tey jii xëy na seenu dem jot na nu mën a dem fexe renouveler ko balaa mbir mi di tàmbali lii yëpp nag nu def ko nag pour élection yi mën a am ci jàmm waaye élection yoo xam ne tam yu transparente lay doon yu mucc ayib la yoo xam ne dañ ciy gis tamit taux de participation boo xam ne bu am solo ndax loolu bokk na ci liy déterminer démocratie nattug démocratie réew kon loolu mooy li nga xam ne COSCU def na ko fii ci Ndakaaru tey fukki fan ak benn ci weeru avril ñi ko nag mooy ONG 3D réseau Siggil Jigéen RADDHO OSIDEA IRAK AGET forum des justifiables handicap handicap forum éduc ONDH LCDH SERAC ñooñu noo signé déclaration bi ñoo ngi leen leen gërëm. dialogue du wees dialogue du wees ndaxte ba bu ñuy dem ca bu ñu nee suba la élection sax bu ñu ci defee dialogue bu amee lu ci juddoo. mun nañ ko dugal tëxañ ko ci code électoral parce que loolu la euh, li li code protocole CEDEAO di wax que ne bu ñuy dem ci élection bu desee juróom-benni weer kenn du laalati code bi daf ci tofal benn wax bu ne sauf bu amee déggoo ci ay modification donc euh, mun na am déggoo ba ba ñuy naan ginnaaw suba la élection yi ñu changé je crois que loolu moom lu am solo la maintenant parrainage ñun mësuñu wax ne parrainage dafa bon xoolal nombre candidats yi am tey jii bu fekkoon ne amul parrainage yi nga gis ay candidature fantaisiste et donc mun nañu am 60 candidats demaguñu sax élection am nañu lu mat 20 loolu bu amul parenage mun na indi jafe-jafe mais dañu ne parenage bi dañ ci war a génn ay jàngat jàngat bi ñu ci war a génn mooy parenage bi euh, mun nañ ko def parenage boo xam ne euh, bii la wala baax. bële maanaam ñi am ay député par exemple seen i député mun nañ leen parrainer ñi am ay conseillers municipaux seeni conseil conseillers municipaux mun nañ leen parrainer loolu lu ci li muy jur mooy wàññi yàq xaalis wàññi temps bi ñu di consacré ci parrainage ba pare wàññi doublon ndaxte tey bu ñu tegge woon yeewu askan bi parrainage teggi par exemple Benno Bokk Yaakaar parrainage exemple laa joxe rek teg teggi keneen ak keneen parrainage parce que am na nombre de députés yu leen parrainé wala conseil municipal yu leen parrainé ñooñu du ñu uti ji ay parrain parrain citoyen parrain citoyen yooyu yu ñuy bañ a uti ji ñeneen mun nañ ko utiliser mu indi wàññi doublon parce que problème bi gën a am solo ci parrainage mooy doublon ñu te naxante parrainage moom doublon rek mooy problème bi litige yi si am yëpp ñun ñu ngi woon conseil constitutionnel parrainage bi lii moo ko waral doublon yi kese na alors beneen bi ñu si sërëxal mooy jàpp nañu ne du conseil constitutionnel moo war a saytu parrainage conseil constitutionnel dafa war di àtte warul bokk ci xeex te parrainage da koy boole ci xeex bi ndaxte ñun ñu ngi fa woon conseil constitutionnel képp ku am lu muy euh, recours fa la ko war a yóbbu donc warul mu bokk ci xeex bi xoolal bi mu amee jafe-jafe ci parrainage bi ci législative yi bi mu amee jafe-jafe ci parrainage bi si local yi mais kan moo àtte conseil constitutionnel parce que boobu ministre de l' intérieur moo géré parrainage bi mu amee ci législative yi mais bu amul woon ku àtte mun naa ne dëkk bi sax mun a tàkk mais léegi boo jëlee conseil constitutionnel mu nekk ci ki nga xamante ne moom mooy bokk ci xeex bi léegi bu nit ñi d' accord laax moom fan la ñuy dem joytu dafa war a am toujours ci euh, doxalu élection wala ci bépp wàllum yoon lu ñuy wax recours donc moo tax ñu ne conseil constitutionnel dañ ko war a épargner bokk ci xeex mu war a muy jouer toujours rôle à thème te pour loolu mais mun nañu mettre en place benn commission boo xam ne mooy gérer parrainage nga xam ne loolu rek lay def ku d'accord laax moom nag dem conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel mu ngi soog a dugg ci parrainage parce que année yi fi passé bu ñu fàtte ne parrainage mu ngi fi jug de dañ ko yemale woon ci indépendant yi bi temps ñoom yu sunduur ak ñoom juma jaxate di def parrainage kii ñoom yu sunduur di def ay parrainage ak yooyu boobu conseil constitutionnel atte kiwu kii wu ko géré ko woon te boobu présidentiel la woon donc présidentiel aussi mun nañ fexe noo xamante ni du conseil constitutionnel moo koy géré mais mooy atte conflit yi jóge ci parrainage bi beneen bi mooy affaire révision bi ñun suñu campagne commencé nañ ko bu yàgg dañ koy soog def officiellement rek lancement bi mais ku seetaan tele démb ku seetaan rajo yi xam ne commencé nañ campagne bi mais tey lancement officiel la dañoo mobiliser aussi 46 euh, relais superviseurs noonu lañ koy defee sax observa observation électorale observation électorale danañ mobiliser junniy nit juróomi junni observateur mais bu ñu mobiliser juróomi junni observateur aussi benn superviseur la ñuy am par département parce que moom mooy wër di xool liggéeyu ñooñu maintenant bii pas dañu def supervision ciblée euh, observation ciblée on n'a pas parlé de mot observation euh, pour affaire affaire révision yi parce que observation dafa laaj ay accréditation yooyu moo tax ñu tuddee leen ay relais citoyen ñoo xam ne dañuy dem saytu rek nga xam ne nguur du ñu mun a wax yéen a ngi observé te joxuñu leen accréditation parce que accréditation ñu ngi koy jox ci bu ñuy def élection parce que yooyu jar nañu leeral ko parce que mën na dal ci noppu état bi mu ne pourquoi ñuy def observation de la révision alors que amuñu accréditation mais ñun defuñu observation la révision en tant que citoyen dañuy xool dañuy def euh, contrôle citoyen de la révision c'est différent de l'observation parce que l'observation dafa am ay chartes yu ko tëral donc on fait le contrôle citoyen de l'observation et dans un seul but euh, le but de corriger bu amee ay euh, jafe-jafe ci biir lu ñu contrôler xool ne par exemple commission bi amul membre Sénat te membre Sénat daf ci war a nekk di tamponner di ci def lépp lu ci war loolu donc la alors je crois que loolu moo doon question yi jafe-jafe yi fu mu toll nii ya dafa am benn confusion mu am juste si euh, citoyens yu bëri jàpp ne euh, ñoom seen cas seen récépissé la ñu war a demee toujours euh, pour inscrire ci liste électorale alors que léegi carte d'identité nationale moom la ñuy inscrire alors loolu def nañ ci proposition aussi pour que jafe-jafe boobu mun a mun a dañ